إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد عباد الله yéen mbokk jullit yi tedd yi ñu ngi yeesal ne mboole mi sant day ñeel na yàlla moom mi nga xam ne moo ñu bind ca luy xéewal ci ñun moo ko ci def ñu ngi seede ne kenn yoyoowul ñu koy jaamu lu dul yàlla kese kenn yoyoowul di jàngale nu ñuy jaamu yàlla lu dul yonentam ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam gannaaw loolu mbokk julit bokk na ci ngëneelu yàlla ci ay jaamam mu ubbil leen ay bunt yoo xam ne dana cay ful seeni tuyaaba dana gën a yomb ñu jege seen ngërëmal baroom loolu nag bokk na ca fukki fan yi nga xam ne nii suñu borom yàlla subhanahu wa taala dugal nañu ca ca mooy fukki fan yi nga xam ne nii moo ubbi la nga xam ne mooy weeru tabaski suñu borom yàlla mooy bind lu ko neex sunu borom yàlla mooy génne leen lu ko neex ca lam bind looloo tax bi mu bindee kaw suuf tànn na ca place bu gën yépp ca mooy Makka xatta place yooyu ñuy jaamu yàlla tànn na ca ba gën yépp mooy masjidul haram loolu nag mbokk suñu borom yàlla bokk na ci ay ngëneelam mooy mu ubbil ñu jaamu yàlla gu ñu wax aj makka waaye mu daal di koy farataal ca ña nga xamee ni dañ ca am kattan kese ku ca amul kattan jéggal na la waaye itamit mu boole ca ubbi beneen jaamu yàlla boo xam ne ña am kattanu aji ak ña amul kattanu aji ñoom ñépp ñoo koy bokk dund mbokk tey ji da ngay gis ni ñee di aji génn nañu seeni kër dem nañ ci gox boo xam ni miinuñu ko ña ngay nekk di dund ak dund gu xat ca seen dëkkuwaay ya ca seen douche ya ñuy rang loolu lépp lan mooy jubluwaay ba mooy sàkku ngërëmal yàlla subhanahu wa taala ngërëmal yàlla boobi mbokk ñu xam ni suñu borom yàlla it mi ngi ubbil bunt ñi nga xam ni demuñu ña nga xam ne dañoo toog ci kër ya doonte ne màkk soriñu leen plus de six mille kilomètres waaye teewul ñu mën a faggu ci seeni kër lu mel ne moom la ujaaje di faggu ca mooy njéggal ak yërmaande ak ngërëmal yàlla borom bi subhanahu wa taala loolee mbokk suñu borom mi ngi ko ubbi ci fukki ma fan yu mag yi nga xam ne ujaaj ya ca la ñuy dem nekk ca dem Muuna dem Arafa Muzdalifa sànni jamra wër Kaaba ga Safa ak Marwa yooyu nga xam ne yu gën a màgg ci at gi mi ngi am ci fukki fan yooyu fukki fan yooyu nga xam ne suñu borom da caa waat mu ne mi ngi waat ci fajar di waat ci fukki guddi ya wal fajri wa layaalin ashr loolu mbokk muy wane ni mboolem langue dëppoo nañ ci ni soo waxee ay guddi kese day yóbbaale bëccëg soo waxee ay bëccëg kese dana yóbbaale guddi soo nee guddeeg bëccëg nag ñu doo ko xam la nga jublu ci guddi ak la nga jublu ci bëccëg loolee kon layaalin ashir yooyu mooy wane fukki fan yu njëkk yi ubbi ci tabaski suñu borom yàlla subhanahu wa taala tuddaat ko ne bis yu ñu xam la mu ne mooy ngir nit ñi mën faa daje tudd turu yàlla ca la nga xam ne fa la ñuy aje ci place ci bis yoo xam ne yu ñu xam la ñu tudd ko ca la nga xam ne mooy jur ga ñuy rendi loolee suñu borom yàlla wax ñu tudd turam ci fukki fan yi boole ci jur ga ñuy rendi dalay wan ne kon loolu jagle ga nekkul ngir waa Makka kese ndax rendi googu waa Makka dañ koy def waaye ñi nekkul Makka it dañuy def loolee loolu moo tax ba mbokk jurit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day toog na ci sahaaba mu ne leen xam leen ne suñu borom yàlla day ubbil na leen buntu jaamu yàlla ci fukki fan ya nga xam ne moo ubbi lii di tabaski loolee la ca jaam bi di defal yàlla ci tuyaaba ak lu mu tuuti tuuti moo gënal yàlla tuyaaba ba gën a rëy bu dee fukki fan ya paase na sahaaba yi na ko waaw bu dee jihaat ci yoonu yàlla nag mu ne même ñay jihaat ci yoonu yàlla ci yeneen fan yu bokkul ak fukki fan yi loolee ñay def tuyaaba ci fukki fan yooyu ñoo leen ëpp tuyaaba xanaa lu dul koo xam ne day daa dem di jihaat ba alalam jeex muy jihaat bañ far ko faray ku mel nii daal la kenn mënut a dab waaye ku dul kooku rek jëf lu baax ci fukki fan yi mooy la nga xam ni moom moo ëpp tuyaaba ak foo ko mën a defe ci feneen ku dul foofu loolu moo tax ba ngalawaay yéen ñi ci tey yéen ñépp xam ngeen li ñuy tudde ay bonus tey mboolem société yi nga xam ne dañu yor télécommunication am nañu nu ñuy ñaaxi nit ñi ca mooy bonus am na 300 pour cent 500 pour cent loolu it na ngeen xam ne yéen a ngi dund ci fan yi bonus ci fan yoo xam ne nii man nga caa dabe ña la rawoon man nga caa rawit ña nga xam ne nii dañ laa jiitu woon tey jii mbokk xam leen ni ñi nga xam ne ñi nga jëm Makka yóbbu nañ seeni alal yóbbu nañ seeni xol doonte ni xam leen ne suñu borom yàlla lam gën a xool ci doomu aadama bi moom mooy la nga xam ne mooy xoolam ak jëfam loolu moo tax ba waa ji nga xam ne génn na ma nga jëm makka di sàkku ji ngërëmal yàlla ngal la waay yow mi toog sa kër war ngaa laaj sa bopp manit naka laa mën a fàggoo ngërëmal yàlla ngiree ñu bokk lañu am ca loolee mbokk da ngay gis ne wax nañ leen ko ci xutba yi romb mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu wootee kay leen ñu dem jihaati ak rome yi ci tabuuk sahaaba yi am kattan génn joxe seen alal mu am ñoo xam ne ñëw nañu amuñu dara ñu ne ay yow mi yàlla yónni ñun day amuñu lu ñu yóbbu ndax dooñu may lu ñu war yonent bi ne leen oo ma lu ma leen may ngeen war borom bi mi ngi ñuy nettali ne ba ñuy nit bi ña nga doon jooy ngir bëgg dem jihaat te mënuñoo dem jihaat loolee bañ jógee ca xare ba ca la leen yonent bi alayhi salaam waxoon ne moo ne day bàyyi nañ ca Madina amul benn xur bu ñu romb amul coono bu ñu daj amul benn tuyaaba bu ñu yàlla bindal lu dul lu mel noonu yàlla bindal na leen ko sahaaba yi na ko ah yéen yàlla yéen ca ñoom ña nga toog seen kër ca Madina mu ne waaw waaw ndax li tee ñu ñëw ànd ak yéen mooy dañoo am ngànt loolu it mbokk julit suñu borom yàlla xam ne ni julit ñépp mënuñu am kattan dem Makka xam ne ne ñu am kattan dem ca it mënuñu at mu nekk ñu dem Makka looloo taxit mu ubbil leen bunt boo xamee ne nii dana tax seen jëf ya ak seen xol ya daa di ànd ak waa makka ba nga la waay suñu borom yàlla subhanahu wa taala lépp lu mu leen fay ca loolee dana leen góor-góor dana leen a jagleel fay leen ko xamal ne yaa ngi nekk ci weer wu mag xamal ne ñee nga xam ne dañoo jublu makka jubluwaay ba du jëmmi kaaba ga kaaba ga du jëriñ kaaba ga du lor arafat du jëriñ arafat du lor kay yor njëriñ ak lor mooy suñu borom di borom asamaan ak suuf mooy borom Sénégal di borom Makka di borom dëkk bu mu mën a doon kon yow xamal ne jubluwaay waa Makka mooy sàkku seen ngërëmal borom nga la waay yi wit julit góorgóorlul sa dund gépp waroon naa nekk jubluwaay sàkk sa ngërëmal borom waaye góorgóorlul jamono bi nga xamee ne sa dëkkandoo sa mbokk tàggu na la moom génn na léppam jëm màkka yow it góorgóorlul jéem a jublu ci jaamu yàlla yoo xam ne nii ba baa muy dellusiwaat di la ziyaar day fekk na yow it yaa ngi woon ci loo xam ne yaa nga cay sàkkoo ngërëmal borom bi subhanahu wa taala looloo tax ñu war a bàyyi xel ci fukki fan yii ci lii di ñëw la ci jiitu mooy jéem a tuub suñuy bakkaar ngalla waay doomu aadama xamal ne bokk ne priorité ci jaamu yàlla mooy nafar sa bopp xool la la yàlla nattoo woon ci bakkaar lan mooy bakkaar mooy gàttal ñu goo gàttal ñu ci ndigalu yàlla yoo jëfewul wala nekk goo nekkoon ci terab yàlla jalla waala loolee nga tuub ko tuub gu sell mbokk tuub jaamu yàlla gu màgg la yàlla dana gërëm tuub gi nga tuub ci fukki fan yi nu raw lu mu koy gërëmee ci boobu fukki fan yi passé te it mën ngaa am chance lool suñu borom yàlla nangul la sa tuub ba pare yërëm la ca mooy jéggal la say bakkaar ba pare dox sa diggante ak say bakkaar yal na yàlla nangul ñu tuub ci yërëm ñu gannaaw loolu mbokk jullit xam nañ ne bokk na ay ngëneel ci weer wi ñu nekk mooy ñu baril ci la nga xam ne mooy koor ndax li nga xamee ni ni mooy suñu borom jalla waala gis nañ ne bokk na lu mu gën a bëgg ci jaamu yàlla yi muy koor nee na doomu aadama jëfam yépp moo ko moom ba mu des koor koor moom maa ko moom ca maa cay fayaate loolu moo tax ba fukki fan yi nañu xam ne fukki fan yi koor la loo ca mën nga woor ko ca am na ay xadis yu juyoo ca moo di ne ne jële nañu suñu yaay Afsa mu ne yonent bi alei salaam da daan woor juróom-ñeenti fan yi yépp ndax bi su fukkeel bu mumkin du ko woor doonte ne ni lenn ci borom xam-xam yi dañ ne xadis boobu nekkul xadis bu wér suñu yaay Aïcha moom def ni musuma gis yonent bi alayhi salaam di woor ci fukki fan yi su ko defee la gën a jub gën a mucc ayib moo di ne ne yow bu dee da nga cay woor da nga cay woor ngiree ne woor ci jaamu yàlla yi yàlla gën a bëgg la waaye du ne dañoo am tegtal yu leer na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da doon woor juróom-ñeente ya soo mënee woor juróom-ñeente ya lu baax la mënoo ko woor ca lu mu néew néew ñetti fan mënuloo ko am na loo xam ne nii moom lenn dong moo war a tee jullit bi bañ koo woor muy juróom-ñeenteelu fan ba di yow mu arafa nga xam ni ren jii mi ngi nekk samedi bii di ñëw bu dellu si ñu ngi profité di waxit ne bokk na ay xabaar yoo xam ne nii jot nañu ko muy fee ca Arabie Saoudite ak dëkk yi nga xam ne ñoo ko wër yàlla dogal nañu gis fa weer ba kon suñu bisu àjjuma bi tey mooy nekk bis bu njëkk ci zulhijja mi ngi noonu di ëpp fukki fan yooyee yow mu arafa mooy samedi bii di ñëw bu dellu siwaate te incha allah la aju ci yow mu arafa boobee dana am xutba spécial boo xam ne nii moom lañ koy jagleel kon lu ci waay man woor ko lu mu néew néew yow mu arafa boobu bu mu la raw waaye ngalla waay mbokk bu ñuy wax jëf lu baax xamal ne la jiitu ci jëf yu baax boobee moom mooy julli rawatina yow mi nga xam ne yow góor nga bu dee ne waa makka takk nañ seeni bagage jëm makka ngal la waay yi takkal say bagage jëm ci néegu borom ba fexeel ba bu doon yaa nga ca fa lillahi alhamd waaye bu doon nekkoo ca ngal la waay maa ngi lay ñaan fukki fan yi bu la benn julli raw ca julli mbooloo yonent bi aleyhi salaatu wasalaam nee na man gada ila almasjidi aw raaxa aadda allahu lahu fi ljannati nuzulan kullama gada aw raaxa rawahu albuxaari wa muslim yonent bi salallahu alayhi wa sallam nee na ki xëy jëm ca jàkka ja wala mu gont jëm ca jàkka ja nee na day heure boo xëyee dem yàlla waajal na la benn daluwaay réception bu mag buñ lay waajal ci biir aljanna boo gontee naka noonu xanaa du waa makka àjjana rek la ñuy wuti xamal ne loolu yàlla mi ngi la koy may ci loole yonent bi alayhi salaatu wasalaam daanañu ñaax nee na amul kenn ci yéen koy dem julli ji fajar ca jàkka ja gannaaw ba toog fa di def zikrullah ba ba jant bi fenk mu daal di jóg julli ñaari rakka lu dul yàlla dana ko may yoolu at ak umra bu mat sëkk bu mat sëkk bu mat sëkk nga la waay yow ma ci nekkoon yaa nga ca woon yow mi nga xam ne mu ca musoo caa nekk nga la waay même bu doon benn bis sax ci fukki fan yi nga la waay góorgóorlul fexe ba jaamu yàlla googee nga profitoo ca la nga xamee ni nii moom mooy jigéen dem ca jàkka ja day du farata ci moom waaye na xamal ni jigéeni yonent ba jigéeni sahaaba ya ñoom day dañ daan dem ci néegub yàlla ba dafa sàkku ngëneel ya góor ñu bëgg doonte ne nekkul farata ci ñoom waaye boo fa demee la yàlla yi fay góor ñu yàlla fay la ko loolee mbokk bokk na ci tamit ngan la waay baril ay naafila waa makka àjjana la ñuy wuti yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day nee na ca loolu ki ko nettali mooy umu habiba kenn ci ay soxnaam mu ne man day dégg naa yonent bi alayhi salaam ne man salla isnatay asharata rakka fi yawmin wa layla buniya lahu bihinna baytun fi ljanna rawahu muslim amul kuy xëy benn bis nga naafila ca fukki rakka ak ñaar lu dul ñu tabaxal la kër ci aljanna loolee bokk na lu ko borom xam-xam yi di détaillé mooy ñeenti rakka avant tisbaar ñaari rakka après tisbaar muy juróom-benn gannaaw ba ñaari rakka après timis ñaari rakka après géey bu ko defee boo ko boolee muy fukk ak ñaari rakka ya ngay julli gannaaw avant ngay julli fajar loolee mbokk ñu bàyyi ci xel bu baax te mooy baril ay naafila amul benn ra sujjuud bay sujjuud lu dul yàlla yëkkati la ci ay daraja far ca say bakkaar mu gën laa jegeel say borom bokk na ci loolu mbokk génne sarax xamal ne sarax day lu baax la waaye gën naa baaxati boo ko génnee ci fukki fan yi nga la way góorgóorlu loo mën ci def sarax sarax lu bari la alal la yëre la lekk la lu mu mën a doon nga fexe ba góorgóorlu ci fukki fan yi mu bañ laa raw ndax mën nga caa def benn boo xamee ne nii bu paasee mën ngaa defaat ñaar fukk ci yeneen i bis ca la nga doon am ci benn ci fukki fan yi doo ko am ca yee jiitu loolee mbokk ñu bàyyi ci xel bu baax bokk na ci loolu mbokk julit bari la nga xamee ne nii moom mooy ay ñaan tey boo gisee kuy dem makka nga naan ko bu ñu fàtte ci ñaan waaye mbokk nañu xam ne yàlla moomee nga xam ne moom mooy nangul ñaan waa makka yàlla moomu jalla wa ala day moom tamit mi ngi nekk di woo ay jaamam fuñ mën a toll ngir jaam yooyee daal di koy wuy si ca la nga xamee ne nii moom la leen di woowee loolu mooy lan yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na amul benn bis lu dul bu guddi gi demee ba ba mu des ceer ba suñu borom dana woo ay jaamam ay yéen samay jaam ana kan moo may ñaan ma may ko ana kuy sàkku xettali ma xettali ko ana kan moo may jéggalu ma jéggal ko ba baa la nga xamee ni nii mooy fajar bi jot loolu it nga la way mbokk julit julit bi toogoon ci lalam ba dégg asalaatu xayrun min a nawm mu daal di yeewu daal di jóg julli farata kooku day def na lu baax waaye ngëneel bu rëy rëy romb na ko nga la waay jullit tàmmalal sa bopp bu dee ne da ngay xam ne waxtu fajar heure bii la lu mu néew néew trente minutes jiitu loolu nga daal di jóg la yàlla dogal ci rakkaa nga julli ko toog nag di ñaan yàlla sa soxlay àdduna ak sa soxlay àllaaxira di ko ñaan mu daal di lay defal yiw defal ko sa njaboot ak mboole mi jullit waaye di ko ñaanit mu jéggal la la nga xamee ñi ni moom mooy say bakkaar mbokk loolee war na koo def waxtu wu nekk waaye ak a gën a am solo ca jamono yi nga xamee ne nii moom la ñuy dund ngan la waaye mbokk jullit xam leen ni bokk na ci loo xam ne imaamu ahmad solo na ko kii nga xam ne mooy abdullah ibnu omar di ko nettali mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam day xutba na leen na leen xam leen ni day fukki fan yii mooy fukki fan yi gën a màgg ci yàlla maa ngi leen di sant ngeen baril ci la nga xam ne mooy kaddu laa ilaha illa allah ngeen baril ci kaddu allahu akbar ngeen baril ci kaddu alhamdulillah lii mbokk da ngay gis abdullah ibnu omar moomu nettali xadis bi daana ànd ak abi hurayra ñu ñaari sahaaba yu mag ci fukki fan yi nga xam ne ci la ñu nekk di génn ci mbedd yi di kabbar ci kaw ngiree doomu aadama yi dégg leen ba mën a roy seen kabbar yooyu ca mbokk bokk na ca allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah wallahu akbar allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd ca may jurit fukki fan yi foo toll nga miinal sa lammiñ zikrullah doonte ne ñett yooyu ñu tudd ci hadis bi ca mooy alhamdulillah allahu akbar laa ilaha illa allah waaye it lii di mboolem zikri ci des bañ laa raw lii di baqiyatu salihat سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله أستغفر الله أك اللهم صل على محمد وآله وسلم كما يفاتل غيبري ذكر الله xamal ne la gën lañuy def zikrullah mooy jàng alquran ca mbokk jàng alquran xarf bu nekk jëf spécial la الرسول صلى الله عليه وسلم نينا من قرأ حرفا في كتاب الله فإن له بها حسنة كيف كو خمني ني دغا جانغ بن حرف ci téeréb yàlla bi am nga ca loolee tuyaaba loolu muy wane ni tey yow mi jàngoon fatiha kese fatiha téeméer muy 113 téeméer ak fukk ak ñett ci xarfa la kon def nga téeméer ak fukk ak ñetti ci tuyaaba loolee kon fukki fan yi ñu góor góorlu jéem cee bari lool lu ñuy jàng téere bu yàlla bi tey bu doon te ne mën nga caa wàcce kaamil ba lépp mu ni loo ko loo mën nga jànge ko ca yow mi munta liir alquran sax la nga mokkal ci alquran nga di ko baamu sa kéemtaleel kattan même bu doon ay qul wallahu ahad ngay toog benn place jàng ci sa kéemtaleel kattan ala kulli xaal loolee lépp ca jëf yu baax yi gën a am solo jëf yooyee mbokk ca la bokk lii mbokk da ngay gis ne benn tënk la boo xamee ne nii yow doomu aadama bi bàyyi ci sa xel ca mooy suñu boroom daa bëgg ñu màggal la màggal wa man yuazim sha'air allahi fa innaha min taqwa al qulub te suñu boroom yàlla màggal na fukki fan yi ñu góorgóorlu màggal ko moytu ci lépp loo xam ne yéeguñu ne ngërëmal yàlla ma nga ca moytu seetaan télévision yu ban ya xoolal sa portable yi musiba bi ñu yàlla nattoo ban temps ngay jagleel sa portable ci fukki fan yii ay waay ak neexoon portable ba dina jëriñ nga ciy jàngal quran ak neexoon nga ciy déglu la nga xam ne mooy xutba yi ak waxtaanu diine ya ca moytu xabaar yi xiila wa qaala mbëri yaag lamb yaag politicien yaag débat yaag yoo xam ne nii amulu la njëriñ adduna amulu la njëriñ alaxira ngal la waay mbokk julit yonente bi salallahu alayhi wa sallam day daawul deñ di bàyyiloo xel ci ne ay yéen ñi demul màkka yit xam leen ne yéen a ngi nekk ci jaamu yàlla gu rëy looloo tax mu daan wax ne kenn ci yéen day bu fas yéenee tabaski mu daal di yëg ne weeru tabaski feeñ na na def la waa màkkay def ay waa makka bu ñu xasee ba armal amatuñ droit laal ci seen karaw di ci dagg dara amatuñ droit laal seeni we di ci dagg dara yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne yow miit nga xam ne dangaa fas yéene rey bul laalati ci sa karaw di wat ci dara bul laalati sa wey di wat ci dara ba baa yàlla subhaanahu wa taala di dogal ngeen rey ba pare loolee kon mbokk mi ngi nii di xéewal gu rëy gu sunu borom yàlla ubbil ñu yàlla mi ñu ko ubbil yal nañ ca yàlla tabbal lépp lu ñuy jural ngërëmal yàlla yal na yàlla yombal ko ci ñun lépp lu ñuy jural yërmandeem yal na yàlla yombal ko ci ñun lépp lu yàlla di jagleel ñu aji ja Makka yal na yàlla jagleel ñu ko yal na yàlla defal ñu jàmmi àdduna defal ñu jàmmi alaxira yal na yàlla defal ñu jàmm ci suñu réew yal nañu yàlla yónnee nawet bu barkeel nawet boo xam ne dana ànd ak jàmm mboolem tiisi àdduna tiisi alaxira yal na yàlla subhanahu wa taala fegal ñu ko ca mboolem aafiya àdduna ak aafiya alaxira yal na yàlla سبحانه وتعالى جعل نيوكو ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين